yow mu ne daal nañ dem déglu Ablaye Wade góor gi jërëjëf jërëjëf jërëjëf maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di am mbégte bu yaatu nag parce que barki démb laay waxtaan ak sama benn xarit ne ko mais Macky Sall yéex naa génn Macky Sall dafa génn rek asamaan si commencé lëndëm taw bi daa day wàcc suñu kaw loolu nag mooy waaye ne yow da ngaa génn <laughs> réew mi taw kon Macky dañ lay ñaan nga toog bul ñëw ndax yow bi nga bi nga génnulee béykat yi commencé nañoon jàmmat sàmmkat yi rawatina sàmmkat yi nga xam ne hmm. seen nag yi dañ ko mujjoon doon jaay ci njëg loo xam ne day dafa doy waar mais président Macky Sall comme que dem na nag ba xam ne ne moom dafa def ay vacances vacances yooyu nag ku ko ci ŋàññi yaa ngi ñuy tooñ. na ngeen ko bàyyi mu vacances su. parce que koo xam ne danga toog ci réew mi tawul. nga génn mu xiir nga dem mu taw. Mm. waaye mais toog fa mu gën a taw. ndax président Macky Sall mm. ñaar laa ñaar laa koy ñaanal. mooy comme que réew mi ci boppam ñëpp xam ne mag yi ah. dafa am fula boo xam ne moo tax mu jàpp ne. rus nay taxaw di wax nañu baaw naan man lii bu musaan am dama doon woo marocain yi marocain yi yàlla may na leen loo xam ne xëy na am na ñeneen ñu ko munul ndax asamaan si bu yàlla nangoo mhm. ne du wàcce tawam mhm. mun nga ut ay pexe yoo xam ne boo ko defee mu taw waaye tamit taw bu mel nii tamit eh, wax dëgg yàlla mhm. baax na waaye moo gën xam nga taw boo xam ne dafa ñëw sax xam am yàq-yàq waaye dina fi bàyyi ay njeexital njeexital yi mooy nag yi ak jur yi dinañu lekk Macky Sall nag bu doon may moom damay jënd seetu seetu laay jënd seetu dem xool sama bopp waxtaan ak man ak sama bopp léegi su ko defee parce que koo xam ne kenn mënu laa yedd ba ngay yeddu da ngay yedd sa bopp ci ñoo jëm seetu seerum téeméer nga am ab daggit toog sa ruq a kan yedd sa bopp ne waaw man yow laay waxal comme que dama génn mu taw te maa toog te maa ngay ñaan ci jëmm rasulullaay bi lee bul ñëw Macky Sall déedéet bu leen tàccu nee leen amiin kuy ñaan kay kenn du ko tàccul Macky Sall maa ngi lay ñaan yàlla nga toog foofu bul ñëw Macky Sall bu fekkee ne loo gën a toog mu gën a taw Macky des fa Macky Sall bu fekkee ne yow sa génn gii moo tax taw bi génn kon toogal ndax boo ñëwee nii taw mi toog yéen jàpp leen ko ci amin rek Macky Sall maa ngi ñaan yàlla di ñaan yonent bi nii nga tukkee dem rek taw mi soob ci suñu kaw yàlla nga gën a toog taw mi gën a Macky yàlla nga fa jaaree sax fàtte ne Sénégal yaa koy jiite taw mi nu mu neexee ci xol yi tàngaay bi wàcc góor gi commencé ree nag yi sax barki démb ñu ngi ree Macky yàlla nga toog ba fàtte na yaa jiite woon seen waaye Macky xam nga xam nga lii nii nga toogoon ci réew mi woo baaw naan kat yi ah. woo ñi nga xam ne ñooy lébu yi ñu génn la sara moo gënoon da nga dem rek da nga dem rek yàlla weer la jé dafa dem rek yàlla weer ma mais Macky maa ngi lay ñaan ci jëmmu Rasulullah bi déeyi Macky toogal bu ñëw di la ñaanal yàlla may la fan bu gudd waxuma la nga toog fa mais toog fa yàgg fa toogal ba mois de septembre toogal ba octobre toogal ba novembre ba desembre sa Macky toogal